wa maa lu màgg màgg ajjumala rafetal na manaazirat tabixati xoolukaayu nature ba fii tilkal buqaxati ci boobee bàkk ab tayyibati ba aji teey min lubnaana ci lubnaan basaatiinuy burtuqaali chardin yi orange yi alxadraaw yi aji du tax alxadraaw nga delloo ko ci basaatiin tantashiru danañu tasaaroo baynal jibaali ci diggante doj ya alxaribati yi aji jege wal baxri ak géej ga al azraqi ngay aji bula al fasihi ngay aji yaatu turasihuha dana leen doronke wala day mën na leen di xoob al azharu tóortóor ya al baydaaw yi aji weex wa xanaaqiidul burtuqaani ak céggi orange ya al jamilatu yi di aji rafet al jamilatu ya di aji rafet mu ne yoon wi neexutoona jaar ba jàll fa ñuy wane yu yéeme waaye mujj nan àgg ban àggee nag gis nan béréb boobee na nga xam ne moom la rafete ak na mu teeye xam naa ne fu ràññiku la ci booru seet biir Liban gis fu ni mel du yomb xa da ngay gis ay jardin orange yoo xam ne dañuy natax lool ay doj wër leen ñu dend ak géej gi nga xam ne ndox mi dafa bula te géej gi yaatu ñu amee ay tóortóor yu weex tàll yu mel dafa leen a xoob ak ay ceeg gi orange yoo xam ne nañu rafete daal neex naa xool wan naa su nit ña bi albisatihim ci seeni col maanaam seeni col muy seeni koddaay al muxtalifatil alwaani yi di aju wuute ay couleur wal ashkaali ak i forma yaxtalloona danañu occupé shurufaatil manasili balcon yi kër yi wayam la oona te ñuy feesal al arsifata trottoir yi wa saaxata ak palaas ba al hammatu bi public wala bi aji matale wal midiyaahu rajo ba laa yenn fakku lu deñ yursilu di boyal ajmalal alxaani gën jaa rafeti ay xeeti misik wal angaami ak i way wal ahadisi ak xeeti waxtaan aziraahiyati yi ko jug mbay nit ñi fa nekkoon ñu bare bare lañu wuute lu ñu sol nu mel maanaam lañu sol daal wuute na ci couleur wuute ci forme am ci ñu taxaw ci balcon yi kër yi am ci ñu nekk ci trottoir yi fees ko dell am ci ñu nekk ci place bu yaatu ba fees ko dell ba tey rajo bi àndaale ci yëngal xew-xew bi ci di digtal nit ñi ay xeeti musique ak ay xeeti way ak xeeti waxtaan yoo xam ne yépp daa aju ci mbirum mbay wa faj atan ci lu bette daw wat riir na ngay sàdd waaw gi muharrikaatu darajaati moteeri welo ya albuxaariyat yi ko jóg woppeer daañu wax ad darajatu albuxaariyatu di wax ad darajatu annaariyatu jublu ci moto cycle wala li ngay wax motard rek motard yi nga mel ñi dara président de la république innahu naka moom mawkibu faxaamati raisil jumhuriyati mooy cortège son excellence président bu république bi al lubnaaniyati bi ko jóg lubnaan yuraafiquhu dana àndoon teeg moom rijaalul xukumati góori gouvernement bi al akaarimu ña gën a tedd ci lu bettee betti dañoo dégg ay moto di riir riir mu xumb xumb ñëpp di xool di yuqamti ku ba xam lu mu doon ndekete président bi mooy ñëw ci exposé bi ànd ak nag ak gàngooram muy waa gouvernement ba wa baxda an yaxusa ci gannaaw ba jàppee faxaamatu raisi son excellence président bu république bi xistan ab cër min raaxati ci noflaay yaftatihu lay ubbi almaarida exposé ba li yu shaahida ngir mu jàkkaarloog intaaja ay dil musaarixiina produiru loxoy baykat ya al lubnaani yéena yay ko jóg libaa fanaraa te dana nu gis te wamaa lu màgg màgg ajjama la rafetal na maa la nga xam ne naraa dana nu ko gis naraa dana nu gis ak bara atmaaril burtuqaali gën jaare yi meññeti orange wal wal xaamid aj wex man nga ne wal xaamidi ak limon maanaam citron wala agrim daa am yoo xam ne dañu xaw a weex mel na limon yu mel na moom la ñu wax xamdiyaat wax agrim wala citron citron nag moom mooy limon allati ya nga xam ne xamalataha ñoral na leen ashjaaru intilias garabi intilias wa jawaariha ak garabi la dëkkaaleeg maanaam sësaloog intilias wan raatane gis moozama faakihati lubnaana li ëpp ci furu yi lubnaan wa qudari lubnaan ak lujumi lubnaan allati yi nga xam ne tunti juhaat na leen ñoral araadihi ay suufam qaasiha aji sori seen wa daaniha ak aji jege seen fa min xaa bokk na ci maa loo xam ne huwa moom xadiisul xitaafi aji yees ak watt la wa min xaa bokk na ci maa loo xam ne huwa moom maxfuudun lu ñu garde la fil baradaati ci ay frigidaire wala ay frigo wa min xaa bokk na ca ma loo xam ni huwa moom mu jaffafun lu ñu wowal la bu président bi agsee day noppul ab diir door a inauguré door a ubbi exposé bi daa tàmbalee xool moom ci boppam nag li nga xam ni moom la baykati libaane yi ñoral ci seeni mbay luy tam nag mu tàmbalee xool di gis li nga xam ne moom la baykati libaane yi bay mu ràññeel ci nag orange ak limon ak wax yooyu ñu gis ca ay doom yu rëy rëy yoo xam ne yu yéeme la garab yi intilias yi ak pësës ak moom ñoo ko meññ ñoom doom yu rëy yooyu nu gisit li ëpp ci xeeti fur yi nga xam ne suufi réewum liban ñoo koy ñoral ak lu jum ya am na ci yoo xam ne fañ ñore soriwut am na ci yoo xam ne fañ ñore sori na am na ci loo xam ne dañ koy door wat wattu gu yees am na ci loo xam ne dañ ko wattoon bu yàgg denc ko ci foo xam du fa yàqoo mel ne frigidaire mbaa frigo ak loo xam ne dañ ko wowal te xam nga da nga gis reseñ ñu koy wowal ba mu wow wa in xajibtu ndéem yéemu naa li shay in ñeel dara fa innama xajibtu naka yéemu naa li mushahadati naxina bi ngir jàkkaarloog reseñ ja fi zamanil burtuqaali ci jamonoy orange wa mushahadatil yaqtinati ak jàkkaarloog naajo allati ma nga xam ne yabuluxu dana jot tuuluha ab guddaayam tuulal insaani guddaayu nit naa guddaayu taxawaayu nit wa mushahadati xudbaani xasabi sukkari ak jàkkaarloog banti gattaxi sukkar ab daxmati ajrëy ila axiri ma jëm ci la mujj ci la nga xam ne xunaalika nekk na foofe minal xaraay bi ci yiw tumuranki mooy ci yéemu mu ne su amee li ma yéem daal mën naa ne mooy rex njama gis foofee te loola du jamonoom jamonoy orange la loola lu ma tey yéem la gis naa fa it ak naajo goo xam ne daa gudd ba toll ne taxawaayu nit gis naa fa it ay gattax yu suukar yoo xam ne dañoo rëy lool ñu ni woon gattax yu suukar di toll noonu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal ku yéemu rek boo leen gisee yéemu wal xaq dëgg rek aqul lay wax inna azamatal intaaji naka rëyug produire ga da neexee naka rëyug produire rek al lubnaani yi bay ko jóg liban tata jàlla dana feeñ fi haadal maaridi ci bile exposé achaaixi bi aju soppaloo annasi bi nga xam ne ittaxasa jàpp na al lubnaani yoona waa liban yi min hu ci moom idan feet wataniyen gu national lahum ñeel leen fa sammawhu te ñu tudde ko iidal laymooni feetuk limoo fii lubnaana ci lubnaan dëgg daal lay wax li wóor daal mooy ku dem ci exposé boobee da nga gis bu wér ni nga xam ne moom la waa liban yi di baye ak lañu amee ca mbay ma ci lu yéemoo yéemu ba mujj sax ñu sàkk exposé boobu at mu ne ñu def ko waa réew mi yépp muy waa réewum liban di fa tase ñu tudde ko nag Aïdul Laymoun fi Lubnaan dëgg daal lay wax libaane yi mbay mi ñi mbay ak la cay ñore daal ku dem ci exposé boobee da nga ko gis muy lu fés lu leer nàññ al mataaxinu ay moulin maanaam ay walukaay man nga ne machine wal rek mu njëkkee anwaaxuhaa seeni façon al mataaxinu machine wal yi talaafatu anwaaxin ñetti façon lañu maa iyatun kojug ndox wa hawa iyatun ak kojug air muy ngelaw wa kahraba iyatun ak yi kojug courant mu ne machine wal yi dañuy ñett am na ci yoo xam ne am na ci yoo xam ne énergie bu leen di doxal day bàyyikoo ci ndox am ci yoo xam ne la leen doxal day bàyyikoo ci ngelaw li am ci yoo xam ne courant nag moo leen di doxal shahatu jàkkaarloo na maag mett xanatan machine wal maa iyatan bi ko jug ndox wataaniyatan ak bu ñaareel këhraba iyatan bi ko jug courant la ushahid mësuma jàkkaarloo mataaxina ay moulin ay machine wal xawaa iyatan yi ko jug ngelaw mu ne machine wal boo xam ne kàttanu ndox moo koy doxal moom gis naa ko boo xam ne itam courant moo koy doxal gis naa ko waaye boo xam ne nag ngelaw moo koy doxal moom laa mësta gis almitxanatu almaiyatu moulin boo xam ne kojug ndox la ci lay bëgg a wax tàddooru dana wëndeelu almataaxinu moulin ya almaiyatu yi kojug ndox fi faslu chita yi ci faslu chita tuxsaru def na te almiyaahu ndox ya fii aqliyatin ci ay kanaal aw anaabiba wala ay tiwo tasubbu yooyu danañu sotti fii biirin ci ab teen ila jaanibil mitxanati bu nekk ci wetu moulin bi yuftaxu def na ubbi baabul biiri buntu teen ba tatadafaqu dana jiñu almiyaahu ndox ya bi quwatin ànd ak doole tuddaw wuru dana wëndeel mbir waxatan ak xandal min xashabin gu bàyyikoo ci dénk tuxarriku dana yëngal al mirwaxatu xandal ga xajarat taaxooni doju wal ga ñu koy tuddee mël mël lañ koy tuddee yufrixu dana sotti ak taxaanu nit ka nga xam ne mooy wal alxamxa pele ba fii suñ buuxin ci ak kees xasha bi yun xasha bi yun nga ko di dénk yataxanu dana wal alxamxa bele ba yusbihu dana xëy mooy dana mujj taxinan di fëriñ maanaam di ak wal rek bu nee fëriñ ak wal rek lañ ci jublu kon yusbihu dana xëy taxinan di ak wal di sunguf rek yoo baaxu sus def na ko teg fil ak yaas ca saaku ya mu ne dama wax ci moulin boo xam ne kàttanu ndox moo koy doxal moulin yooyu bu dee jamonoy sedd daañu faral di wal dañuy téye ay ndox ci biir ay kanaal wala ci ay tiwo ba ndox ma du mën a génn jàll ñu jekki-jekki nag bàyyi ndox moomee mu sotti ko ci ab teen boo xam ne day sës ci moulin bi su ko defee nag bi ubbee buntu teen bi rek ndox yooyee da nga daal di gis ñu sotti ko ànd ak doole lool noonu ñu sotti ko ànd ak doole am kàttan ku ciy bàyyi ko goo xam ne day wëndeel xandal gi moulin bi day am xandal goo xam ne doole ndox moomu moo koy tourné su ko defee xandal googu nag daal di tourné la ñuy tuddee xajaru taaxoon ñu koy wax mël bu ko xandal gi yëngalee rek say boo nit ka nga xam ne moo féetewoo wal gi mu daal di jël bele bi sotti ko ci kees googu nga xam ne keesu dénk lay doon su ko defee nag machine bi daal di tàmbalee wal bala yàgg nga gis lañ doon wal muy bu dee bele mu soppiku sunguf daal di koy jël def ko ci ay saako al mitxanatu al hawaiyatu nag ci lay bëgg a dikk tu aradu def na sofale mbir waxatun ak xandal lil fadaa yi mu jëm ci espace bi muy jaww ji yantaziru dana neggandiku ak taxaanu nit ka nga xam ne moo bëgg a wal xubooba riyaaxi uppuk ngelaw ya te xubb dana upp ar riixu ngelaw la te dooru dana tourné al mbir waxatu xandal ga fatu dawiru tamit tourné xajarat taaxooni mël ba walukaay yi nga xam ne ngelaw moo koy doxal moom xandal ga cay nekk moom la ñuy jëmale ci jaww ji dañ koy sofale mooy jëmale ko ci kaw ci jaww ji su ko defee nag ki nga xam ne moo bëgg wal day bàyyi ba ngelaw li di ngelaw su ngelaw li dee ngelaw rek nga gis xandal gi nekk ci moulin bi machine wal bi daal tàmbali tourné bu dee tourné di daal tàmbali tourné mool bi nga xam ne moo nekk ci machine bi su boobaa nag su ngelaw li uppee daal ba tourné xandal gi xandal gi day daal tourné mool ba kon nag ka nga xam ne moom fa taxaw tey wal ca machine ba saye ba mu daal di séentu wal gi daal di mokk def sunguf mën koo def ci ay saako al métt xanatu moo ne ba al kahraba yeetu bay ko jug courant al métt xanatu moo ne ba al kahraba yeetu bay ko jug courant ahdasul mataaxini moo gën a yees ci moulin yi تعتمد دنا سكندكو على قوة الكهرباء ci doolay courant li idarati hajaratiha ngir tourner moolam ba soo ko defee nag li idaarati xajarayha muy ngir tourné yaari moolam ya xajaru taaxoon kon mooma tasniya def li idaarati xajarayha yaftaxu dana ubbi ak taxaanu walkat ba ak zirra bouton ba al kahrabaiyata bay ko jug courant tuxarriku dana yëngal al quwatu doole ja al kahrabaiyatu jay ko ju courant al hajareen yaari maliya yufrihu dana sotti at taxaanu walkat ba al qamha bele ba fi sun dooxi ca kees ga mboole bi nga xam ne courant koy doxal moom nee na moo gën a yees gën a moderne ci xeeti machine wal yi dooley courant bi mooy tourner yaari mël yi nga xam ne moo ca nekk kon moom day am yaari mël su ko defee nag moom mi liggéey ci machine bi mooy bés bouton bi nga xam ne dafa mel ne mooy doxal courant bi courant bi daal tàkk tàmbalee yëngal yaari mël yi su boobaa nag jëmm jiwal ci machine bi daal di sotti bele ba muy wal ca kees ga machine bi daal di koy wal ay yuha ana kan ci ñoom ñett afdalu moo gën te dooru dana tourné almitxanatu molin ba almaa iyatu bay ko jug ndox kathiran lu bari fi fas du chita ci fas lu chita yaqsiduha dana ko jublu xam ne qasada yaqsidu moo ci gën a bari nga gis nag lu bari ci téere yi ñu maas yaqsuduha alfallaaxoona baykat ya laa tukallifu du gàlle tamanan njëg baaxiran gu di aji diis yuxibu dana sopp annaasu nit ñi al ujoora payya al muqaffadata ya di ñu woyofal tataxattalu dana taxaw al mataaxinu walukaay yi al maayatu yi ko jug ndox fi fasli sayfi ci jamono été al mitxanatu walukaay ba al hawaiyatu bay ko jug ngelaw qalilatul istimaali aji néew ak jëfandikoo la li anna xubooba riyaahi ngir naka uppuk ngelaw ya mu xayru mutawaasilin du aji sësaloo afdalul mataaxini li gën ci walukaay yi daal almitxanatu mooy moulin ba alkahrabaiyatu bay ko jug courant te dooru dana tourné fi jamihil awqaati ci mboolem waxtu yi tuqaddimu dana joxe ak taxina walga bi surxatin ci lu gaaw daa njëkk ne moulin bi nga xam ne ndox moo koy doxal bu dee ci ñoom buñ tolloo ci faslu chita danay tourné di wal bu baax a baax lu bari ci baykat yi itam moom la ñuy taamu ndax boo dikkee du la teg fay gu diis te nit ñi dañuy bëgg fay gu yomb machine yi wala yooyu nga xam ne ndox moo leen di yëngal ñu yëngutu moom bu dee jamonoy été dañuy taxaw nee na duñu walati moulin bi nga xam ne nag moom ngelaw a koy doxal lu néew lañ koy jariñoo ndax du ne saa yu nekk nga mën a am ngelaw machine wala yi nga xam daal moom courant moo leen doxal ñoo baax lool ndax ñoom daanaka courant du faral di ñàkk te saa yu courant amee rek ñu mën di wal te it wal bi day gaaw nga daal di jot ca wal ga la nga doon wallu ashuur uxibu danaa sopp almataaxina machine waliya al kahrabaiya tay ko ju courant li annaha ngir naka ñoom tuwaffiru danañu lëwal mooy danañu sakkanal kathiran lu bari minal mashaqaati ci ay coona taxsilu danañu raxas alxamxa bele ba watu nadifu watañ koy setal minal awsaaxi ci ay salte wa tatxanuhu watañ koy wal lakinnaha waaye ñoom nag musaxijatun aji sonni lañu doon ida taraa ndem rot na alayha ci ñoom xalalun paan man daal nee na machine yi wala yi courant yi doxal ñoom laa taamu ndax bu dee ñooma doo ca sonn ndax machine ndax machine yooyu ci seen bopp ñooy raxas bele bi dindi lépp lu ca nekkoon ci xeeti salte daal di koy wal da ci xaw a doy waar de mooy bu ñu demee ba paan moom daal di indi coono bu rëy rëy at taw siyaaw kaana nekkoon na dalika loolee fii asnaa in xiqaadi mutamaril onisco ci jamonoy teniiru conférence u onisco ak taalisi bi aji ñetteel fi lubnaan ci lubnaan in xiqaad bi ñu wax teniir mooy rek in xaqada fasu na inxiqaadan ak fasu al unisco biñ koy xamle dañuy wax naa munazamatun taabiatun lil umamil muttaxida unshiat xaama alfin wa tishimiatin wa sittin wa arbain maqarruha paris hadafuha tashjihu taawuni bayna al umam fi mayaadini tarbiyati والعلوم الثقافية كالتعليم الابتدائي الإجباري المجاني والحد من التوتر العنصري وحرية الإعلام مانام ليبرتي بو انفورماسيون بوي جانغ داتو سوسوك mbootaay googu mën ngaa wax xaama alfin wati simi atin wa sittatin wa arbaxin ndax xaama ji nga tudd day mu zakkar lu ñuy góoral kon ngay wax fee wa sittatin mu safaanoog moom di jigéen dama juumoon wax léegi xaama alfin wati simi atin wa sittin wa arbaxin maqarruha fi sharqil awsat Bayrut al UNESCO ak mbootaay la goo xam ne mbaa nga ne organisation la boo xam ne daa taq ci Nations Unies mooy mbootaay gi àdduna bépp bokk moo tudd Nations Unies al umamul muttahida kii nag ab bànqaas la jaan ñu ngi ko sos 1946 siyeesam maanaam fa mu def ab daluwaayam mooy Paris capitale France la taxal ñu sos ko nag mooy bëgg xeet yi di dimbalante ci wàllu yar ak xeeti lu aju ci culture maanaam lu fi maam yi bàyyi woon mi aada ak cosaan lépp lu ci aju ñu koy sàmm bu baax ci wàllu yar itam ñu taxaw temm ci kenn ku ne boo tolloo ci jàng faaw rek nga dugg école primaire maanaam jàng njàng mi nga xam ne mooy mu njëkk mi ba mën cee liir mën a fer i ji soo mënee jàll ci kaw baax na soo ko mënut waaye daal njàng moom moom dañ ciy forcé def ko obligatoire kenn ku ne boo ca tolloo def ko te it nguur gi ñoo lay fayal yow ci sa bopp doo fay dara say waajur duñu fay dara mooy almajani ko defee xeet wu ne boo demee ñi ci ëpp mën a jàng mën a bind ba tey itam UNESCO bokkoon na ci li tax ñu sos ko bañ a boddante ci xeet tension yi am diggante xeet wee xeet wee ndax rek ñàkk bokk waasoo ñu fexe ba loolu dañ mbaa mu wàññi ko lool loolu la def ab nekk waayam bu dee ci gox boobu ñu tudde asharqul awsat xindama aqaamat ba taxawalee alxukumatu gouvernement bi al lubnaaniyatu bi ko jug liban maaridan benn foire man nga ne exposé li sinaahati ñeel xarala ga alwataniyati gi nasi